amatul loolu mooy problème bi amul leneen je crois que c'est clair j'ai expliqué. Mm-hmm. Birame ñu ngi jëm ci ay élections législatives maa ngi koy wax ci présentation bi ñu investir la sur la liste nationale euh, trente cinquième euh, précisément euh, déjà position boobu yow ban commentaire nga ci def ak sa investiture aussi. bon sama investiture y a aucun problème sama investiture man dama bokk ci ñun c'est nous dans nous cest à au fond nit ñi bu ñu ñëwee sax man dama leen war a xajal bu ko defee ñoom dugg man ma pousse taxaw fee. seen moom ñun ñoo ko moom suñu suñu euh, suñu dëkk la suñu réew la suñu xeex la xeex nañ ko ba egsi fii mais ñeneen ñi bu ñëwee dañ leen war a sax xajal ñun noonu la ñuy raisonné ñun raisonné wu ñu di xëccoo classe te jëmee témoin tout le monde m'entend xam nañ ni ba may déposé sax à la dernière minute laa déposé ñëpp xam nañ ni presque war naruma woon déposé tout le monde m'a demandé de déposer finalement et ils ont raison si Ousmane Sonko dépose Biram Khoudia doit déposer parce que Ousmane Sonko rien ne nous dit que dafay continuer nekk président assemblée nationale wala dafay nekk feneen est ce que du continuer nekk premier ministre bi ñu ma joxee argument boobu nag si laa dem déposer mais sinon je n'allais même pas déposer maintenant la place c'est une très bonne place parce que au fond moi je pense que nous aurons au moins quatre-vingts pour cent te bu ñu amee quatre-vingts pour cent damay jàll. Hmm. te bu ma jàllee rien ne dit lan nga jàpp ne biram moo nar a doon sa rôle ci campagne bi 35e sur la liste nationale am na peut-être un combat boo war a mener pour soutenir euh, seen liste. mais dama ni la combat bi moom man bu ma nekkoon euh, deuxième place troisième place quatrième place sax dafay wóor ni da ngay jàll. Hmm. mais boo nekkee trente-cinquième place loolu daf la war a gën a inciter nga liggéey pour ñu am quatre-vingt pour cent léegi nag taxawaay boobu laay taxaw mais nag même bu ñu ma investir woon même taxawaay bi laay taxawaay. def ay porte à porte convenablement comme comme convenu avec mes gens des Parcelles Assainies euh, bu ma fa jógee euh, fi nga xam ni mooy convoi national bi xëy na dinaa dem teew ci ay bërëb bu ma fa jógee ndar gi ma dëkk nga xam ni Pikine ñu ngi may xaar ñoom ñëpp abu sow nga xam ma ngi fay def liggéey bu am solo ma bàyyi ko fa sur place ak ñeneen ñu mu àndal ñuy def liggéey bu am solo ànd ka ak Mbodj Mène nga xam ni vraiment c'est quelqu'un c'est un exemple c'est le directeur de l'ASEPEX je crois actuellement mais c'est un exemple de militant ma koy gërëm di ko sant mu nekk coordonnateur bi nekk Saint-Louis xajalul kenn xatalul kenn boo ñëwee mu xajal la nga liggéey ak moom bu ko defee victoire am maa ngi incité ñëpp ñu def noonu c'est extrêmement important donc noonu laay def Fouta aussi am naa fa ay euh, zone yu nga xam ni fu mel na fan ay jéeri nga xam ni vraiment xale ya fa nekk yépp presque ñu bari sama loxo lañ jaar ñu former leen ba tey ñu nekk ay cadre ñooñu ñëpp dañuy topp suñu gannaaw ànd ak ñun liggéey Birame nooy séentoo législative également face à une opposition très bien organisée. y' a pas d' opposition organisée ñun ah, au moins. yow intercoalition yi ñu dëgg fii. Euh, ay sàmm sa kàddu ak euh, takku wàllu Sénégal. dama ni nga ne opposition organisée. organisée mooy ngeen nekk benn nekkuñu benn xuloo ya xeex yaa ngi mel ne tulleeg male. loolu fépp la Birame. non ñun nekkul ci ñun. investiture yëngal na fi. investiture ñun yëngaluñu. d' ailleurs kenn. jamaay président yënguwul ba am ñu démission. ma ni kenn résisté wul kenn imposé wul. dañu def la ñuy def xool ka nañ ko waree maa ngi gërëm handicapés yi maa ngi gërëm transporteurs yi maa ngi gërëm artisans yi maa ngi gërëm enseignants yi corps de métier bu nekk tous les secteurs d'activité intéressé nañ leen ci biir dugal leen ci te amul mbaa bi ñu paree renforcement bi jógee feneen nga xam ni kenn investiru leen muy euh, ku mel na Kumba euh, Ndofène Arona Kumba Ndofène Diouf ku mel na euh, n'est-ce pas docteur Xuma ñooñu ñëpp Mamadou Diop Decroix euh, ak Mamadou Diop Decroix ak ñeneen ak ñeneen ñu bëri euh, Alioune Sarr sax gis naa ko ak déclaration moom ñooñu ñëpp ñëw su soutenir Pastef te defoon nañ suñu liste ba pare loolu mooy wane ni ñun suñu list bi kat mooy list bi nga xam ni moom la nit ñi bëgg mooy list bi ñëpp bëgg mooy suñu liste donc ñeneen ñi nga xam ñu ngi xuloo xoo amul ci biir PDS xaccoo nañu toj am na ñeneen ñu nga xam ne aujourd'hui euh, démb ay ennemis la ñu woon tey ñu ngi ànd pour des intérêts partisans maa ngi ci incité ay ñu bari sax ñu nga xam ni sama xarit la ñu surtout ñu dëkk Saint-Louis véritablement nañ ñëw fekk si ñu te bàyyi ñële quoi. da tax loolu. oui oui oui effectivement parce que fii mooy dëgg fi dëgg bi nekk nañ fa ñëw. bu ko defee euh, réew mi jëm kanam ñu jox Bassirou Diomaye Diakhar Faye cent cinquante ou cent soixante députés la ca des ñu bàyyee leen ko bu ko defee loolu mooy li nga xam ne ñun moom la ñu bëgg te kat. ku gis mobilisation bii fa ca ca grand euh, arena te ñoom ñii mënuñu mobiliser salle bi nga xam ni véritablement les dés sont jetés. mais Bouga euh, euh, biram nangu nga ne quand même intercoalition yi ni ñu ko tëggee. donte am nañu foo xam ne déggoowuñ fa mais partie yi nekk ci intercoalition yi ak ni ñu investir seen ay leaders Birame nangul ne quand mun na def des surprises aux législatives. mënul def benn surprise. la woon fa woon. na ma doon mobiliser noonu laa mobiliser ñoom nañu mobiliser ñu gis doo leen gis ñu woote de. mais mais nangu nga ni ah, affaire du mobilisation kese. xam nga ñun da ngay fàtte ni gis nañ fi ci élection mobiliser mu fees dell mais bu demee la mu doon. mais la règle est que kiy mobiliser dëgg-dëgg fu mu taxaw nit ña taxaw fa fayu leen waaye moom ñoom dañuy ñëw di fay bu fàtte ñu ci stade dañuy ñëw di fay dugg ñoom bu ñu fayoon ay sax du ñu ñëw cest à dafa mel na yàlla ak yàlla yi te élection yi bu ñëwee législative yi lii ma la wax mooy la waxoon sa présidentielle di nga gis loo ko jub yooxu dina jub fu ñu ko foogewul ñu bëri dañ yooxu ñu bëri dinañ lem seen kaaka bàyyi politique wala boog ñu ñëw toppaat suñu ginnaaw naan way euh, vraiment ñun dañu juumoon comme ñu bare dañ koy def. parce que am na ku mel na euh, ku nekk Nioro Abdou njaay laa mais bi ñu ma wanee li mu doon yàkk Ousmane Sonko nga xam lu nekk yàq naka Ousmane Sonko ci kanamu Macky Sall tey def na déclaration nee na ñun lay jàppale. ba booy yi ne ñu ànd ak moom. ñooñu bëri nañu. booy yi ne du ñu ànd ak kii parce que kii li mu ñu yàq lu mu ñu yàqul amul xale yi ñoom parce que maa ngi lay wax nag. mais est-ce que yéen cautionné ngeen loolu jeunes yi di def parce que politique tam biram addition la te. attention gisaguñu benn objection bu seen njiit yi teg ci ñiy wax ñëpp.